waaw yaakaar naa ne mbiru ñàkk bi dafa am solo lool fii si xeex contre Covid 19 parce que gëm nañ ne tant que ñàkk bi ñëwul xeex bi day metti te bu ñàkk bi ñëwee dañu permettre ñu gaaw si xeex bi mais mu nekk xeex boo xamante ne xeex bu gën a tar lay doon bon nag ñàkk bi ñu ngi koy xaar lool ñàkk bi nag ñaari yoon la ñaari stratégie la si Sénégal bu ngeen fàttale ko président de la république dafa ñu wax ne. continuer leen initiative COVAX bi xamante ne ngeen ko bokk ak ay réew yu bëri si lu ñuy wax benn alliance ay réew yu bëri bokk booloo ne ñun ko dañ bëgg am si vaccin bi mais si stratégie boo xamante ne stratégie mbooloo la président nañu waaw continuer leen ànd si groupe boobu mais bu mu leen teree ngeen am stratégie nationale loo xamante ne yéen yéen a koy élaborer ñun ñoo koy teg en place wuti loo xamante ne suñu mbiru bopp la bon nag Sénégal am na ñaari opportunité ñu ngi liggéey si bi bu vaccin yi ñëwee. danañ ko jël ñu ngi liggéey itam si suñu stratégie nationale président nañu bëgg naa si nu mu gën a gaawee ngeen déposel ma benn stratégie nationale de vaccination covid 19 stratégie nationale boobu pare nañ ko suba si conseil des ministres d'ailleurs laa koy présenté président jébbal ko ko loolu dafa am solo si biir stratégie boobu nag lu ñu mën a retenir mooy que ne am na vaccin yu nekk si biir initiative COVAX yoo xamante ne bu ko homologué initiative COVAX homologué Sénégal daf si jël wallam xam ngeen vax vaccin bu ñu wax donc euh, Pfizer vaccin bu ñu wax Moderna mi ngi si vaccin bu ñu wax euh, donc euh, Sinopharma wàllu Chine mi ngi si vaccin yooyu yëpp ñu ngi si biir AstraZeneca mi ngi si biir donc vaccin yi bëri nañ bu yi si homologué wala bi si homologué boobu la Sénégal di jël si biir initiative COVAX mais président comme que def nañu jël leen benn yoon boo xamante ne itam yéen en tant que pays jël leen seen stratégie ñun tam ñu ngi liggéey si loolu moo tax am na waxtaan yu ñu commencé ko waxtaan nañu ak euh, la partie chinoise par rapport ak euh, vaccin Sinopharma ba euh, ñu tënk ne war nañ si mën a am ay doses yoo xamante ne dans le cadre d'une stratégie nationale bilatérale danañ ko war a mën a am loolu tam ñu ngi si bon nag may dalal xel yi rek ne leen gëm nañ ne vaccin bi mooy doon solution bi xamante ne moom mooy solution bi ñëpp a ngi koy xaar réew yëpp am na réew yu démarré ñun effectivement aussi euh, danañ si euh, dof suñu tànk tax suñu tànk tubéy euh, d'ailleurs si biir initiative COVAX bi avancé nañ presque terminé nañ si biir initiative nationale bi tam waxtaan yi commencé nañ ba avec la partie chinoise am na lu ñu tënk loo xamante ne demain incha allah en conseil des ministres dossier bi may présenté président de la république élément yëpp dana si nekk